gan gi euh, Serigne Mbacké Ndiaye euh, ministre la woon moo jiite euh, convergence libérale patriotique CLP ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM. maa ngi lay fay soxna Fatou di nuyu Sénégalais yi ñu déglu yëpp ci biir réew ak ci bitim réew. mbaa jot ngaa def yëfi njóobeen ci diggante bi. ah dafa guma ko nag. man dute ji moo moo moo jeex moom laay moom laay yónnee ni <laughs> kon baax na ñu waxtaan la te muy yegg si. xam nga man duteeg fonde laay ndékki. duteeg fonde yaa ngi ndékkee lu baax. <laughs> ah gis <laughs> dégg nañu ne da bëgg a doon candidat ci élection présidentielle bi ñu dëgmal lu ko waral. waaw li ko waral de mooy euh, bu ngeen di déglu yàgg ngeen a dégg ma naan bu weesoo suma bàyyi bi Abdoulaye Wade yal na ko yàlla may gudd fan ak wér. langue politique yi jàpp naa ne amatuma ci ilimaan loolu yàgg naa ko wax xëy na nag nit ñi yenn dañ koy wax euh, am na nuñ ko war a jàpp luñ ko jàppe noonu hmm. ci avril deux mille vingt deux suñu parti def congrès fii ci théâtre national Daniel Sorano décidé ni man damay nekk candidat en deux mille vingt quatre mais bi ñu toogee càmbar situation bi réew mi nekk ak réew yi ju wër jafe-jafe yi fa am yépp ci wàllu kaaraange ak biir réew mi coow li ñu nekkoon kon nag ñun li ñu war a def mooy candidature boobu nañ ko tegandi àndandoo ñun ñëpp def bloc jàppale président Macky Sall ah mais biñ koy jàppale aussi te damay wax di ko baamtuwaat ni liggéey na ci réew mi liggéey boo nga xam ak man am naa ci moom yaakaar joo nga xam ni bu doon doon candidat fukki yoon ma di ko jàppale fukki yoon loolu amul werante Hmm. mais bi ñu demee nag ba moom ci wàllu boppam mu ni nekkatul candidat loola maanaam lépp day daal di soppeeku ndax diit ki mën nga ko wóolu waaye xëy na la nga gis ci moom ba tax nga wóolu ko ba ànd ak moom man nga ko bañ a gis ci ñeneen ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ñaareel ba dama daan dégg sénégalais yi lu mat fukki at nii boo leen waxee dañ naan Macky Sall nit ku baax la hmm. Macky Sall liggéeykat la Macky Sall jàmbaar la waaye bari na ci ay ministre ñoo nga xam ni teg kilo nga xam ne du maa ko du samay kàddu mhm. seeni kàddu la parce que dégg même président Macky Sall toog na ba tàyyi ak ay ministre am ay collaborateur wax ni ubbi leen seen buntu wax leen ak Sénégalais yi mhm. kon man sama réflexion mooy sama xalaat donc mooy kooku nga xam ne moom lañu wax ne moo baax moo mën te mu def lu ñëpp teg seen bët mhm. su demee ba ni moom bàyyi na ñu doon wax naan ñii kat doyloowuñu leen ndax nawloowuñu sénégalais yi ñenn ñi ci ñoom bopp ñenn ñi ci ñoom mënoo leen a woo téléphone ba jot leen ñenn ñi ci ñoom mënoo am ci ñoom soxla ba jot leen ñenn ci ñoom mënoo am soxla ba ñu faj ko est-ce que sénégalais yi pare nañu pour que ñooñu nga xam na ñoom lañ doon tuumaal loolu ñu wëlbati ko ànd ak ñoom yaakaaruma kon ñun ñu jàpp ni am na ci ay xalaat yoo nga xam ne bu ñu yàlla dimbalee parce que vingt quatre euh, août bi ñu nekk ca Ziguinchor la ñu bëgg a lancer officiellement candidature bu ñu ca eggee ñu wax lan la ñu nam ma def ci Sénégal lan mooy suñu gis-gis loo nga xam ne bu ñu ko defee sénégalais yi xam ne lii wuute na ak li fi daan am. Hmm. te it jàpp nañu nag xam nañu réew mi jàpp nañu ne xam nañu état jàpp nañu ne am nañu relation ci biir réew mi ak ci bitim réew. jàpp nañu ni jaxasoo nañu ak kilifa diine kilifa aada loolu moo waral bala ñuy yëkkati candidature bi bureau exécutif national dañ ne ma defal tournée ci kilifa diine yi ma tàmbali ko naan yeggaleegu ma ko am na fu ma jot a dem am na fu ma eggul may gërëm ñi nga xam ne ñëpp dem nañu fa rawatina nag suñu sang suñu xalifa suñu wasila bu sëñ Mountakha Bassirou ma di ko sant bu baax a baax a baax di yeesal njëbbal ci moom ndax ni ma koy woowee ni ma koy tuddee rek mooy borom jàmm ak jamono. Mm-hmm. ndax foo ko gis beneen ngay jëkk seen. Mm-hmm. te saa bu jamono ji amee amee amee jafe-jafe moom muy jóg réglé ko. Mm-hmm. kon loolu bu amee ñu dem waxtaan ak ñoom te bu ñuy demee dañu sàkku ndigal bu ñu amee ndigal ñu soog a sàkku ñaan. kon yooyu yëpp ak yeneen yoo nga xam ne danañ ci am ci ay waxtaan xajul ci benn émission bi. tax na ba ñun ñu décidé nekk candidat en deux mille vingt ki ñuy jàpp nag maanaam ki nga xam mooy porte suñu candidature du suñu parti. mais dañu taxawal benn alliance boo nga xam ne ñu ngi ko tuddee Sénégal suñu moomeel sama yitte. Hmm. Sénégal suñu moomeel sama yitte donc alliance boobu mooy porter la candidature Serigne Mbacké Ndiaye à l' élection présidentielle de 2024. baax na fii ñu cay àgg ñu waxaat euh, ci Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na fi yàgg te wér ni nga ko waxee dem nga woon seeti ko ngir sa candidature waaye lu ko jiitu seeti woon nga ko euh, bi euh, coow li ni cobboy ci Sénégal surtout ci mbiram Ousmane Sonko weeru juin bi ñu weesu ndax mën nañoo jàpp ne tànk jàmm yooyu nga doxi woon ndam la tey bu ñu xoolee fi ñu toll ci mbiram Ousmane Sonko ba tey ñu teg ko loxo mu ne ci kaso bi sumbu gerewu xiifal ba fi mu ne yaramam sutante mu nekk l'hôpital ndax tànki jàmm yi euh, antu na. waaw xam nga tànki jàmm moom dikkul keroog. ndax euh, lu ko jiitu. may profité occasion ginnaaw bu ma lañ njëbbal ak ziar. di nuyu it waa këram. muy sama xarit Mountakha Kane muy sama jigéenu bopp di sama sëriñ euh, di di di di soxna sëñ bi di it doomam sëñ mu Moussa ñoom ñëpp ba di leen nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax may fàttali nii ci jamono demoon naa seeti ko waxtaan ak moom ci diggante président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall booba ña ngay waajal inauguration jàkkay ma euh, jumaay Massalikul Jinaan mm-hmm. ba ma demee it sëñ bi rafetlu ko ni ma ki fi mujj ñëw di ci wax moo doon sa sa sa sarak Alioune Badara Cissé yàlla ko yàlla yërëm mu doon fa ay tànki jàmm mm-hmm. ma dem fa waxtaan bi ak sëñ bi ba yàlla dogal nañu ko waxtaanee woon dëgg la ñu bare bare xëy na dox nañ ci ku ne def nga ci wàll ndax mbir tamit bu amee ku ne ngay jóg di dox. Mm-hmm. mais kenn ku nekk la nga def yow loolu nga xam. donc ba ñu demee waxtaanu naa ci ak sëñ bi mu jur la mu jur. Euh, ni ñu ko waxee it keroog bi Sénégal amee jafe-jafe ma am lu ma gis am lu ma yëg dem naa waxtaan waxtaane ak moom mu def ca la mu ca war a def ba ju jàmm am ci réew mi jàmm jooju nag doyul. ndax ni ma koy waxee boo ñëwee fekk nit ko loxo bi dagg di nàcc da nga ci takk ak buum li ñuy wax garoo ba nga xam ne deret ji dina dina taxaw ñu soog a seet ay solution ci loolu la ñu nekkoon kon li nga xam ne am na tey ci réew mi man de bokk naa ci ñi nga xam ne neexuñu neexuma man personnellement ndax sénégalais bu mu ci mënti doon nag man duma li yéene sax bantu xat ñu di ko teg ci sa kaw waxuma la leneen wax ni wër sa am dama ni duma la ko yéene. Mhm. rawatina sama baat ca kaw Ousmane Sonko sët li ci man du tey laa koy jëkk a wax. Mhm. yaayam Khady Ngom ak Betty Ngom mi ko yar suma ay garbaat lañu seen maam Ulay Sow sama suma cousine la kon yàgg naa ko wax mu neex mu naqari bokkal donte nag bokkuñu ay position donte ànduma ak moom ci doxalin mhm. waaye mbokk gi moom mu ngi fi waaye bu dul woon mbokk it muy sénégalais bu dul woon di africain. kon yéenewu ma ko li nga xam ne moo ko dal tey maintenant bu dox tuuroo rootiwaat fu sës na ko olof def am bàq waaye bàq amul njëriñ mm-hmm. rootiwaat moo fu rootiwaat bi mooy ñëpp ànd ak dal dama koy wax di ko baamtuwaat fitna du régler dara mm-hmm. xeex ak xuloo du régler dara waxante lu ñaaw du régler dara te mbir boo koy jéem jéem ko jéem jéem ci benn façon doxul olof yi dañuy wax ni jéem tële bàyyi gàcce amu ci mm-hmm. kon bëgg continuer ci yoon wi nga xam ne ñoom moom la ñu jaar man de jàpp naa ni du yoon woo nga xam ne yoon wu leen di julee njariñ la jàpp naa ne du yoon wu jural Sénégal njariñ la. da ngaa gis beneen yoon ànd ak dal. Hmm. yoon bi mooy d'abord ne euh, dal benn. Hmm. ñaareel ba mooy ñu xam ne Sénégal dafa am justice dama ko yàgg a wax ni amul benn Sénégal bu fiy dox te gëmoo justice amul même ñi koy wax. xëy na dañuy nekk ci situation ni ni gëmuma justice parce que boo leen seetloo kenn ku ci nekk seetaan ñu ki déglu yëg nga bërki de Ndiaye ñu ni Ousmane Sonko bind na tribunal mhm. pour wax ni comme jàpp nañu ko te dañ ko condamné woon par contumace kon condamnation ba ba dañ dañ na am na wala amul tribunal moo koy wax waaye nit ki boo demee bay bind tribunal c'est parce que gëm nga nit gëm nga ne justice am man mhm. nga bañ a d'accord justice nañ ci ay point mais justice ab donc il faut que justice ñu bàyyi ko mu def liggéeyam ñaareel ba ñu xam ne force de défense et de sécurité muy police muy gendarmerie muy tribunal boole ci sax euh, muy euh, euh, police gendarmerie ak militaire yi boolu nexe boole ci douane sax ak oo et forêts ñoo ñëpp dëgg di dugal ci biir dañ fi nekk pour aar askan wi ñu ci ma sàmba ñu ci ma demba ku man di doon président da leen fi fekk booy dem da nga leen fi bàyyi ñooñu it ñu wormaal leen parce que tey boo gisee ñu man a dem ba egg ci xalifa euh, Sall ak ak Karim Wade ñu mën a leeral seen mbir. Hmm. tegg la ñu tegoon ci ñoom. c' est parce que tribunal dafa def liggéeyam ba mu jeex bi mu defee liggéeyam ba mu jeex nag président laa def am sañ-sañu wëlbatiku jéggal leen lii tamit bu amee parce que bu fekkoon ni man nañoo génne Ousmane Sonko fa mu nekkoon du fa dugg. doon mbir boo cox sogge nga gis ne na muy demee kat du doonu da ngay arrière. loolu ci suuf ñu jéem a seet beneen solution parce que solution mënta yàq mënuñoo fexe ba du ñi nga xam ne Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ay sénégalais lañ mënuñu leen a jël génne leen réew mi yóbbu leen Burkina Faso màgg yóbbu États-Unis comme xam dañ ay sénégalais lañ comme ñun day metti rek mais fokk ñu joxantewaat loxo fokk ñu ànd ci biir réew mi fokk ñu ànd liggéey réew mi loolu nag li ko indi mooy benn mooy dal ñaareel ba jox état war ba ji nga xam ne moom la ci war a jox. jox force de sécurité de défense war ma ji ngeen war a jox bu ko defee ñoo ñu def seen liggéey man ak ku mel ni man wax ci dox ci seet ci nan lañ mën a def pour dal gën a am jàmm man am ñu joxante loxo loolu nag waxtaan da koy am na jàpp ne waxtaan woowu sax dafa war a am diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko ba ci sax ñoo xam ne dañu jege lool njiital Pastef est-ce que jàppoo ne woowu la yoon buñ ci amee buñ ci awee jàmm dina am. déedéet loolu du yoon wi de. Hmm. du yoon parce que loolu kenn dong ko fi wax mooy ci tas réew mooy Aliou Djily moom dong mooy wax loolu te depuis ci njàlbéen bu ngeen fàttalikoo ba en deux mille vingt et un bi coow li amee man bind naa benn post ci sama page page Facebook presse yu bëri reprendre ko ma ne ko courage bu petit fils xaw ma yaa def xaw ma defoo mais reste digne dans l'épreuve bàyyil tribunal mu def liggéey ay nit yoo nga xam ne mun naa ci tudd mel ni imam Dramé xam ngeen ko baax. Mm-hmm. ni ma est-ce que doo dox pour Ousmane ak président Macky Sall toog ma ne leen bu ñu toogee lan la ñuy waxtaanee mbir moo nga xam ne yoonu président Macky Sall nekku ci damay waxte yàlla tax ba muy jib ba affaire bay commencé Macky yëgul tinul kon suñu wëlbatikoo ni ko yaay complot yàq nga intervention bu mu ci mënoon def moom yàq nga waxtaanoo nga xam mën na ci def mën na ko def ak nit parce que xamuma ñoom ñaar bu ñu toogoon lu ñuy waxtaane yàlla dogal ñu woote dialogue ma ne ah occasion ngi nii parce que dialogue bu njëkk bi Pastef ma nga foon amoon na fi représentant PDS dong moo ko fekkewuloon hmm. kon dialogue bi bu fekkee ni woote nañ ko man ma jàppoon ni tous les hommes politiques tous les partis politiques war nañ ci mën a ànd ñëw ñu toog waxtaan fa waxtaane réew mi évidemment ñi ñëw damay respecter seen position ñi ñëwul it damay respecter seen position mais li ma ciy jàpp rek booy ñu ñëwul jàpp naa ne lañ ci perte mu ëpp lañ ci gagné kon waxtaan diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall man gisuma njariñam. Hmm. li ma gis mooy tribunal bu defee liggéeyam parce que ki ñu tuumaal loolu wundul ni moo def tribunal mooy wax ni moo def wala deful bis bu tribunal waxee ni diw bi moo def nag ba ñu xam ne moo def wala ñu ni deful bu boobaa la ñuy mën a ñaan président de la république li nga xam ne mooy responsabilité mu jël ko man di jàpp naa ni lépp lu may mënti wax ak lu may mënti def soit ma nekk opposition ma nekk au pouvoir ma nekk candidat ou bien ma gagné élection sama objectif mooy fexe ba sénégalais yépp àndandoo joxante loxo góor ak jigéen mag ak ndaw ñu àdd liggéey réew bi parce que réew kenn du ko liggéey ci xuloo kenn du ko liggéey ci xeex kenn ko mm. liggéey ci leneen loo nga xam ne dañ ko bokk te kenn mënu ci génn sa borom kenn mënul tàggoo ak sa morom nañu rafetal jabi hmm. nañu rafetal soo mi duggee ko jabi maanaam nañu rafetal àndandoo bi hmm. ndax réew mi mën a jëm kanam xeex moom a nga tudd léegi de moom la ñu wari di ragal mu am diggante réewu yi Afrique yi ndax CEDEAO euh, daal dinay dànqaafu euh, waa Niger ne dana leen song ak ay takk der euh, loola la ca topp yëpp yëg nañ ko jarul ñu ciy dellu si mooy artu Burkina ak Mali est-ce que jàpp nga ne woowale cong mooy solution walla gis nga beneen saafara jàpp naa ne du solution jàpp naa ne njuumte la dafa fekk nag militaire donte muy général bi chef d'état-major général autorité politique bi moo ko jox digal muy doxal noonu la adduna di tëddee mais question bi mooy lu tax defuñu ko Mali lu tax defuñu ko Burkina bëgg ko def Niger defuñu ko Guinée bëgg ko def Niger jàpp naa ne erreur la parce que jël ay soldats tey ñu dal ci kaw réewu Niger di rey ay nigérien africain buy rey africain ak lu lu mën a tax nga di ko def man jàpp naa ni erreur la li war a am mooy dañu seet lu waral lii am ndaxte France Occident de manière générale hmm. def nañu njaam muy esclavage def nañu colonisation néo colonisation mooy tubaab bi jóge fi waaye bàyyi fi nit ku ñuul koo xam la tubaab bi doxal moom lay doxal ba tey jeunesse africaine africain yi de manière générale hmm. am gis-gis bu bees bu ñu am ni la ñu daan nangu dootuñu ko nangu kon loolu bu amee ba muy indi ay jàmmarloo réewu Afrique ñoo war a seetaat seen bopp xool ban taxawaay la ñu war a am daf may fàttali parce que programme bi ma lay wax nii war nañ ko gaaral Sénégal yi dinaa ci génne benn ponk rek pour wax ko benn ponk boobu mooy ñun dañu proposé ñu taxawal benn haut conseil de la république boo nga xam ñi fi nekkoon président de la république ñi fi nekkoon premier ministre ñi fi nekkoon président assemblée ñi fi nekkoon président conseil économique social au conseil des collectivités ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkoon war nañ man a dajale ci kuréel goo nga xam ne dañuy xelal njiitu réew mi mais également mën nañu représenter Sénégal ci yenn situation li tax ma wax ko damay fàttaliku Guinée ba mu nekkee ci ay jafe-jafe yu méttee méttee métti président yoon yónnee na ma plusieurs fois du benn yoon ñaar yoon hmm. loo nga xam dama koy jiitu ju Guinée am liggéey bu ma sant ma def ko fa ak responsable guinéen yi ba moom su ñëwee day dajale ñi nga xam ñëpp lay recevoir opposition pouvoir ñëpp lay recevoir waxtaan ñoom loolu moo waral waraloon mu yónni wut ba Maroc ma dem seeti ja jabar yooyu Dadis Camara dama koy wax parce que lu weesu la dama koy wax parce que war nañu mën a servir d'exemple hmm. kon jàpp naa ne tey ñi nga xam ne ñoo ŋànk tey CEDEAO bu ñu demee Niger li ëpp solo au lieu ñu daje falee def benn réunion dal ci suñu jàpp naa ne lii ëppoon solo mooy fexe ba ñuy xëccoo nguur gi ca biir Niger. Mm-hmm. ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom. parce que bu ñu jógee ni dañuy dal seen kaw réew mu mel ni Mali jóg di leen défendre ñoom bu fekkee ne am nañu soupçonné ne français yi ñoo leen di jàppale Russie ñoo jàppale ñeneen mu indi musiba boo nga xam suñu région bi. Mm-hmm. te taluñu loolu. moo tax ba euh, Mali doon génne armée française tey jamono ma ñaar ñaarlu woon ko parce que lañ si doon ragal mooy ni mooy am tey. heureusement bi nga xam ne président Macky Sall ci xelam mu rafet taxawoon taxawaloon na fële ci penkub réew mi groupement buñ tudde garci bi ay ay ay takk der yu dox suñu diggante ak jihadistes si nga xam ne ñu ngi jóge Mali mais buñ ko defoon ba tey ëgsi nañu biir Dakar kon réew mu nga xam ne loolu moo fa moo fay dox tey suñu jógee dal ci kaw Niger ubbi nañu buntu musiba moo nga xam ne xamuñu fan lay yem mm. te musiba nag ab xeex boo koy tàmbali xam nga ne tey nga koy tàmbali xamoo ko ngay jeex li xew diggante ci yaakaaroon na ay jamono bu dalee ci Ukraine du mat une semaine mu faagaagal ko boobaa léegi parce que ab xeex bi jeexul mi ngi mi mi ngi mi ngi ay jafe-jafe partout ci àddina bi. Hmm. kon loolu jàpp naa lu jara moytu. mais Sénégal tam est-ce que teelut a wax bëreet rek ñu ne pare nañ pour yóbbu ay takk der. waaw xam nga Sénégal bu bokkee ci CEDEAO. Hmm. CEDEAO ay takk der Sénégal bu dul bañ a yóbbu mais décision bi au niveau de la CEDEAO la foofu la problème bi amee. xëy na ci biir CEDEAO man naa am fekkewu ma de. Hmm. dama ne mën naa am tax Sénégal bañ cee ànd ci loolu waaye bu ko CEDEAO di décidé daf cay ànd bu ci àndee rek fokk yóbbu ay soldats. am na ñu jàpp ne loxol France ne ci ginnaaw li lépp. Ah? am na ñu jàpp ne loxol France ne ci ginnaaw loola yëpp déclaration yeeg yooyu. waaw mënees na koo jot mënees na koo njort. ndax bu ñu gisee France digganteem ni mu demee ak réew yi wër Niger mën nañ ko ñor bu ñu gisee ni bauxite bi nga xam ne moom la uranium bi nga xam ne moom lañ fay jële mhm. euh, di ko jële Niger prix ba ko français yi di jënde ak prix bii nga xam ne ñu mel ni Russie moom lañ koy jënde mhm. kon gis nañu ni bu fekkee ne gouvernement changé na aw Niger mhm. te gouvernement bu nekkul gouvernement gouvernement bu juboo ak France mais kon ñoom mën nañu soupçonné ni France loolu du intérêt mais bu ñu fàtte ni état yi réew yëpp amuñu ay xarit ay intérêt la ñu am. Mhm. français yi nag am nañu droit défendre seen mais ñun en tant que africain également ñoo war a am droit défendre suñu intérêt. Mhm. ki nga xam ne nag moo ñu mën a dimbali ci défendre suñu intérêt bi du couleur am moo am solo du réew mu mbokk. Mhm. nay français nay russe nay américain nay allemand nay chinois nay ku mënti doon koo nga xam ne tey mën na défendre intérêt africain yi jàpp naa ni ak fu mënti jóge nay Russie nay keneen laa wax na mhm. nañu ànd ak moom pour défendre intérêt africain yi. français yi ils ont raison seen intérêt pour ñu jéem a def en Afrique pour mën a ko ñu exploiter mais bu fekkee ni bëgg nañu loolu maanaam tey bu fekkee ni damay joxe rek benn exemple. Mhm. uranium France daf koy euh, euh, États-Unis wala wala Allemagne wala Russie dañ koy jëndee dix millions. par mhm. exemple la tonne. exemple rek bu may joxe. Mm-hmm. France bu fa bëggee nekk na ko jëndee dix millions. Ah. mais bu ko bëggee jëndee un million te ñële bëgg ko jëndee dix millions. Mm. dañuy bàyyi France dem ànd ak réew boobu ak bu mënti doon. parce que encore fois intérêt Afrique moo ñu gënal intérêt réew bu mën ci doon. leer na jërëjëf Serigne Mbacké Ndiaye njiital. Euh, convergence libérale patriotique ñu lay gërëm surtout ci disponibilité bi néew na lool bu dee mës naa am li ma lay woo nga gàntal. loolu maa ngi la ciy gërëm jërëjëf jërëjëf xanaa ba nga ne da ngaa tëju. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la ñaanal kenn rek jàmm. ana ñu bàyyi la nga wéyal ma.